am na solo Bougane Gueye Dany démb dafa jàkkaarloog presse senegal invité woon Walfadjri ak 7TV euh, ak euh, TFM da ko cité woon ci euh, bi muy defar kéem bi waaw wax na ak waa réew mi nag ba dugg ci mille milliards yu Sonko yi ci la wax ni banque wala balaa loolu sax dañuy dem ñu déglu ji li nga xam ni moom la Bougane waxoon ci Mansour Faye ñaata la waxoon ni moom la détourné woon wala moom lañ jëlee woon ci keesu réew mi sàcc ko am ko fu ñu dugal ñaata milliards la ñu dellu si waat. lépp ci turu Sénégal quatre-vingt-dix-huit yooyu ci contrat de marché bi dañu wax ne bu xaalis bi yegsee trésor public moo ko war a gérer ñu organiser wu fexe ba contourner loolu jël xaalis bi dugal ko ci compte société privée muy AEGC ci benn banque bu tudd FBN fii ci Ndakaaru xaalis boobu trésor public gisu ko. ginnaaw 98 milliards yi nga xam ne Bougane moo ñu ko daal xabaaroon ni jóge na ci bërëb dem ci compte gannaaw ba démb bi mu bëggee weddi 1000 milliards yu sonkoo yi nee na banque mënta jël lu weesu trente et quelques milliards ñu dellu si waat. moo koy assuré. assurance du nangu. yenn montant yi amul benn banque ci Sénégal boo xam ne. am na coffre. coffre bu mun a accueillir 30 milliards amul. donc xaalis yi nekk ci banque ci Sénégal yépp boo ko dajale woon. mënta mat 1000 milliards. c'est pas ah? lu muy reetaan nii. <laughs> waaw génneel ci samay éléments rek léegi. <laughs> Omar Ibn Khattab moo ñu xabaaroon quatre-vingt-dix-huit milliards yu ñu waxoon ni Mansour fay daal loxoom setu ci ak benn xaw ma euh, cousin boo xam ne moo defoon signature ba ñu sàccal ko Sénégal def ko ci compte. démb bi muy wax ba ñëw ci mille milliards yi nee na banque mënta jël lu weesu trente milliards waaw après nag ñaari wax yi boo yaa ngi koy partage ci réseaux sociaux yi di fontoo Bougane moo tax ma indi ko. waaw démb bi muy wax daf noo wan ni ku ku xam la. bi may expliqué. mel ko xam xaalis la léegi nag li ma jaaxal mooy ñaari kàddu yu wute yi ban moo ciy dëgg. ban la ci. ban moo ci dëgg jamono bi jàppal lim la wax rek. non bu njëkk ba xam nga dëgg ñaar. man moo ci dégg léegi. lépp moo ma. lépp <laughs> lépp moo ma. <laughs> moo ma la doo jàpp bu léegi yow jàpp ci benn. <laughs> jàpp ci benn daal problème boobu laa am réellement. lépp xam nga des fois doo comprendre. waaw ban moo ciy dëgg ak ban moo ci wér. xam ne Ousmane Sonko. Mhm. Euh, des fois da daf leen dugal ci mbedd moo xam ne. Mhm. daf mel ku leen jox yax bi ñuy seen du set mukk da koy sànni. waaw sànni ñu tey ji ngar-ngari ba campagne bi jeex mu duma leen dem yoonu lii Xarim Bamba Diagne doon wax naan da leen dàq politique du seen morom amagu fi naataangoom day dëgg. Mhm. affaire mille milliards yooyu opposition bi dañ ko waroon bàyyi ak Ousmane Sonko. bàyyi ko ki waxam. bàyyi waxam man bu bu bu doon dama ci yor kenn communication dama naan ko bàyyi ko ak ay waxam ba ba campagne bi jeex danañu wax fa milliar milliard mille milliards yi nekk. Mhm. fi waxee ci affaire kër Karim Wade bi mu defee déclaration près gars yi dana ko fa la xaalis bi ne waaw yooyu des fois pour mais le problème du mille milliards yi fii la ne wala fee wala ci biir wax waxi Ousmane Sonko Sonko dafa waxoon ni ci banque Sénégal la wala banque feneen parce que loolu il faut ay financier il faut feneen ak feneen pour man danoo waroon am beneen débat mi ngi mel ne débat bu ñëw ci affaire homosexualité bi foofu tamit Sonko doo leen dugal ci mbedd moo xam ne ñoom mënuñu ko génn parce que korog dama gis benn waaye di wax ma nga xeesal kanam gi ba gën xamul nu mel man ko kii ma ne kii di wax naan Sonko na wax ci homosexualité moom buñ ko criminalisé woon buñ deful ñàkk ci ñuy njëkk rey lay bokk <laughs> moom mi nga wax ak xeesalam waaw mais damay ragal bu ñu ko criminalisé woon <laughs> moom ci ñuy njëkk rey lay bokk d'accord loolu débat Sonko daf mën politique des fois di indi benn débat boo xam ne dugal leen ci ruq maanaam gars yi dañ ci nekk di ngare way wudul am daaneel la. d'accord man way wudul am daaneel wala fi nee na ñi seetaan ñooy sonn wala ñi koy way. mais boo deful nànk di doon sonn ci waxi Ousmane Sonko. macha allah parce que ay stratégie lay tegal yoo xam ne doo xam nun koy tontoo ko am na solo jërëjëf Omar Boun Khattab Gueye bu ci xajee li waa waxoon nee na xaw ma kañ la cee xaj incha allah léegi rek ma jigéen 98 la ñu waxoon ni la moom la ñuy yomb ci banque milliards ay milliards waaye nag tey nee banque mënut jël daal lu passé 30 milliards. waaw son yi booy yi nag ñoo koy fontoo <laughs> recadrel booy yi man kay du ma recadrer booy ay waxam la rek bu ko waxul woon kenn du ko kenn du ko fontoo gis nga nit ni nga mel rek noonu la nit ñi di jàppee son yi bu waaw fekkoon mu ngi ci dëgg wala mu ngi ci loo xamante ne nii peut-être kenn mënu ko ci ŋaañ kenn du ko ci ŋaañ. Mm. démb fii la toog li ñu naan nit moom da nga koy topp di di di wax ci ay waxam ba ba ba yàlla suñu boobam indi la loo xamante ne nii doo xam foo koy waxee moom loolu moom moo koy dal chaque jour gis nga wax nag wax dëgg da caa baax mënuloo démb njaay. nga wax ne diw mii kat dañuy koy jiiñ nangam ak nangam ba ne yor nga ay preuve yow kay boo yoree preuve kon kay nu mu la leeree foofu noonu la la waroon a leeree leeree fii mm. mais naka nga mën a yore say preuve démb tey nga wax ni lii munta nekk mooy li Omar di wax ñaari wax yi ban moo ciy dëgg. est ni ñu ko waxee la rek. nan nu mu ko waxee mais ku génn ne man samay preuve a ngi nii nañ ma woolu waaw woo leen ma. ne maa ngi samay am am am xam na procédure bi nu mu demee yëpp. tey nga mën a taxaw parce que lan waa ji moom moo la neexul gis bu la waa ji neexul nag yéen a ngi toog nag ngeen di ngeen di def seen affaire moom moo ngi déroulé campagne am comme ni mu waree di wax programme am di wax li mu fas yéene nar au lieu mu dem campagne yi jéem a dem xool nu mu mën a wutee ay nitam mais doo ko def de parce que ragal nga mbedd mi léegi ci sa ruq nga koy kar jël journaliste yi ak ñëpp dajale leen dalay jaral sax nga yóbbu ay oto yebal leen pour ñu ñëw rien pour ñu ñëw fekkee sa ay mbir nit day wax dëgg na bàyyi manipulation kon moo amul boo bugaan borom dit à vos kooku moo amul nit bugaan ñaata oto la rangale jëm bàkkale nga naan amul nit. amul nit bu amoon nit génn ci mbedd mi. bu gisoo ko Matam ki Tamba gisoo Tamba goo xam da ngaa dugg ci làqatu ci biir kër mi. ancien Tamba de bu paasee Sonko ku ñeme defal ku ñeme defal li ma ci metti rek mooy que ni ña mu doon xeex démb rek. si seen biir kër yi la la la dalee di wax naan lekk naa fa ay pom joxe naa. sama ah, mat laa ba ma tëddoon dama koo jox nii nii tëdd ci mergaat. loolu am ndimbal la rek. Hmm. xol baa rafet. noonu la ko defee. waaw xol baa rafet rek. Adja. Hmm? ñaari wax de tey la ñu indi. man nag euh, damaa gis booy di ko wëndeel naan kon léegi ban lañ milliards mi ngi ci banque fii mu ni banque mënta jël lu weesu trente milliards. dañoo wàññi coffre banque yi. xam naa ah dañ ko wàññi. Mhm. merci beaucoup Adja. point dégg dafa am solo. pare na très bien ça <laughs> li waaj naan très bien ça dañoo wàññi coffre banque yi dañ nga pare. pare naa ci ah xam nga euh, nit nag vraiment euh, man gis nga damaa bëgg samay waxi daaw. Hmm. ak samay waxi ren buñ ma ko tegalee. Oh, mu méngoo. am na nag lu ca sëñ ba waxoon. nit ki bu fekkee say waxi daaw ak say waxi reen buñ ko tegee mu juyaloo. Hmm. xoolaata sa bopp booy wax hmm. c'est important. kon xoolaat sa bopp surtout dafay politique aspiré jiite Sénégal ak yeneen ak yeneen donc am na loo xamante ni kilifa. du ko du ko naaxaale. kon li sëñ Babacar si waxoon daal duggal sa ruq mën a kan jot na. waaw jot na waaw. <laughs> yow moom xam naa wax jooju lu la saf la. non damaa saf ruq mën a kan. waaw ruq mën a kan. Hmm. Ndiogou. Mm-hmm. li ci des ci temps bi nag bariwul. Euh, en des na sept minutes des na non non pas sept minutes cinq. 98 woon ca banque ba. Mm-hmm. am na ku ma message nee na ma dañoo tasaare. milliards ci banque yi. Mm-hmm. du ci benn compte léegi Bougane tey ñëwaat na ni 30 milliards amul banque bu am capacité wu man koo weesu. moo ñu waxaat lii tey moom Guèye Ndioro. waaw xam nga Bougane moom. ndeysaan man dama ko yërëm alaaj ci nga jàngat rek parce que li tax ma yërëm ko ñi koy seetaan dañoo xam ni xamut ña koy wër xam ni kii xamut moom mu jàpp ni xam na ba buy wax ak ñun nee na ci xam-xam lay wax ak ñun démb dafa toog ne day vaar te fekk ne li muy wax moom mi ngi vaar boppam moom yëgut ni mi ngi vaar boppam. da doon vaar waaw ah, dana day vaar te moom mi li muy wax it moom mi ngi vaar boppam. xam nga loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li. gën a garaaw ci yëf xam nga tey Mansour Faye moom dañ koy félicité. Mansour di wax wax ni am na dëgg parce que moom moo weddi waat waxam. moom moo ah, moo weddi Mansour waa weddi li mu waxoon ci Mansour Faye donc Mansour Faye moo nekk ci dëgg parce que comme que moom nee mënta def fii ci Sénégal lu weesu. 30 milliards 30 milliards. nee na mënu ko def kon moom li mu ñu doon wax ci Mansour Faye amut. kon Mansour Faye eh, ginnaawam ba nag ka ko taxawaloon seetal na ko. loolu nga ci déggee. waaw léegi ñu ñëw nag ci moom ndax moom dañ ne ko xaalis bi Sénégal gii la ne. Hmm. moom kenn waxu ko ne ko xaalis bi ci Sénégal la ne. mooy 1000 milliards waaw. yaa ngi dégg kenn waxu ko ne ko Sénégal la xaalis bi ne. kenn waxu ko moom nag moo jël xaalis moom bëgg koo indi Sénégal daan na Sénégal gii li ak li ku la wax ne la Sénégal. waaw ki doon wax tuddul Sénégal ki doon wax tuddul dëkk ab compte rek la wax. Mhm. fan la. Hmm. Hmm? ndax nga dëgg del wax ci loo xam. ah xamu ko. xamu ko amut xam-xam. bugaan journaliste nag alaaji boo jëlee lépp teg fee. journaliste la xamu xamu xamu ko ak vraiment. yàgg ci métier lii nga xamante ne bii moo ko dal nii tey lii ci moom. lu ko dal ay waxam. ay waxam wàññee coffre banque yi nag wax yi wax yi wax wax joo xamante ni bii yow li ngay wax yaa ngi toog dajale nit ñëpp di wax ci wax joo xam ne yaa ngi weddi say wax. kon ba nga doon wax la lay wax jëlee xamoo woon li nga doon wax. am naa daa fett fàtte woon ne wax na ci Mansour. kat yi waaw moo taxit euh, xam internet moom du fàtte internet moom kii yaa ngi fa. moo tax tey hmm. suba ba nga kii ma ne la waa ji waxoon na fi lii euh, ay mi kii te démb waxaan na lii. waaw. <laughs> <laughs> même lim tuumaal Pastef sax ci sàmm ji koy ci kii bi dafa leen a setalaat. waaw ah, waaw non moom moom moom xam. ndax attaqué na sàmm jikko yi daan ni sàmm ñu ay jikko seen bopp la ñuy sàmm. dem ba ci biir daan ni loi bi mu dugaloon. waaw moo tax ñu tas ensemble. boobu setalaat na encore sàmm jikko yi. waaw xam nga taqal leen ci saa si ci toogaay bi. setal leen ci toogaay bi xam nga loolu kenn mësu ko. waaw baax na alaaji waxtu bi jeex na. Ah. jeex na vraiment wax yi moo. jërëjëf alaaji waxtu yi ñu koy masawu nag di wax ne ko vraiment. na jéem a jàng xam-xam <laughs> waxtu yi jeex na alaaji. une minute rek nga démb nag Assane yónniwu ma ko. une minute hmm. ah ah yaa ngi koy dégg kon. waaw yónniwu ma ko Assane saa yu dem danaan ma jóob lu may jël ma ne ko xoolal lu la neex yóbbu. ah nee na da jël bàyyil ko ko fi. wóor na yàlla du ko bàyyi man dama naan ko xoolal ndax Assane loo ko jox mu yàqu ko comme nag loo ko jox mu yàqu ko koy bàyyi bagage yi boppam. kon kon kon leer na. korog bi mu koy déglu dem mi wax ci Youssou nduur xam nga daa bëgg Youssou Ndour. Hmm. mais saa mbokk Youssou Ndour di dóor rek. man bëgguma lu dul sa noppi. <laughs> aywa am na solo jërëjëf ñoo ngi nuyu nag Adja tey lépp luñ fi chronique ci victime di net ñu ngi ko may Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. Mm. Euh, <laughs> euh, ki nga xam ne mooy fierté bawal la. ajjuma ak jàmm bu ànd ak dogal borom bi sax bi ñu la maanaam ah non nuyoo rek ak di wax ay yéeneem ca bawal ak li mu bëgg ca bawal ma nangul ko ko Cheikh Abdou Bara wax na ma yéeneem bawal ak li mu bëgg ca bawal ñuy wax nag ajjuma Sénégalais yëpp bëgg nañoo dalal Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké demande sociale fii laa ko ay ñaanee. am nañ bëgg a dalal sam samedi ci ngeen bokk 11 ci kër gi. ca ah, solution TV d'accord waaw Mbacke Balla